waaw jërëjëf sama gars yi xam naa fi ngeen duggee moom euh, jarul sax ñuy euh, def ay préalable parce que bëggoon naa quand même comme Sénégal lu bari indi na jiixi jaaxa problème boobu ñu def benn résumé bu ndaw rek pour nit ñi comprendre parce que quand même euh, ñu bëri ñu ngi ciy wax xam nga affaire bii du wax sa xalaat xam nga wax sa xalaat Sénégal dañ ko tàmm mhm. maanaam dara am na réel ci kaw kii bi rek ku nekk yëkkat téléphone am wax xalaat mhm. ñun Sénégal loolu lañ xam Euh, naam ku nekk comme démocratie dafa am ku nekk am nga droit wax sa xalaat mais nag sur des questions techniques précises boo ciy wax da nga ciy xam dara te Sénégal ñu bëri wax nañ ci coow lii te xamuñ ci dara donc vraiment euh, loolu laay duggee beneen bi mooy may leeral sénégalais yëpp ni c'est pas un problème de religion du affaire ay chrétien ki musulman ñooy bokk di jàppante et cetera loolu Sénégal amu fi te ñaanuñu yàlla mu am fi ko loolu mënu fi am sax incha allah parce que tënkee nañ sunu réew noo xam ne loolu mënta am donc man loolu laa gëm bu ci kenn ñëwul fekk suñu rek loolu man gëm naa ne du am parce que ñun entre ñun Sénégal ñun du ñu du ñu du ñu du ñu xool kii lan la ak lee la et cetera ñun amuñu problème yooyu quoi. waaw parce que loolu mooy yoon parce que loolu mooy cimenter le pays loolu mooy indi déggoo loolu mooy indi jàmm. Mhm. parce que réew yi am problème yëpp xam nga la ko gën a andi mooy dañoo boddi compté moo tax suñu constitution bañ boddi compté xam nga boddi compté lu muy indi par exemple tey bu ñu ne s ay jullit kese fii liggéey. Mhm. c'est une bu ñu ne woon Sainte Jeanne d'Arc moo tax sénégalais yi naan na fa julli seeni jëlee seen i doom ils n'ont rien compris mhm. loolu bu ñu ko dee def mooy ku nekk di boddi sa morom ku nekk féete bo loolu baaxul sax ci communauté chrétienne bi parce que actuellement qu'on le veuille ou non dafa am une forte euh, communauté musulmane ak une minorité chrétienne boo xam dañuy dund en parfaite communion mhm. kon nag kenn amul droit boddi compté boddi compté bi ñoom sax ñoo ko war a jëkk a bañ mhm. donc fii kenn nangu ko fi moo tax rafetlu naa jàngu bi seen position mooy cardinal bi ak kilifa diine yeeg ñëpp wax ni loolu dafa war a dakk voilà donc loolu c'est important ñu leeral ko ku amul benn problème entre ñun sénégalais mais li am nag mooy ay lobby yu nekk en France ñoo bëgg a jaare ci benn congrégation jaar ko ci institution sainte gendarme bi nga xam ci ñoom la bokk bëgg fee andi loo xam ñun xamuñu ko mais c'est ça la vérité parce que ay xale yu jigéen yoo xam ña ngi ca école bi dafa jàngale ëpp fukki at ah ñuy muuru di jàngi amul benn problème mais gêné wuñ kenn te laïcité bi ñuy wax contrairement ni ko France di comprendre laïcité mooy ku nekk na dund diine même ki gëmul dara dañ ko may mu dund ni gëmul dara loolu mooy laïcité ku ci nekk dundal sa diine te bul yàqal keneen bul faagaagal keneen te na muy dunde diine ka gëmul dara aussi ñu bàyyi ko mu dund te gëmul dara waaw loolu mooy laïcité France nag moom comprendre wul loon laïcité àdduna bépp nag noonu lañ comprendre ba mu des France parce que France depuis 1881 avec les lois Jules Ferry moom moo jàpp ni dafa war a boddi diine Jules Ferry bi ñu tëddee du question waaw maanaam du question d'ailleurs loolu lañ jokk war a njëkk a jënd parce que suñu réew mi ko tuddee sama la du problème entre religion c'est-à-dire que France ci boppam moom la religion di déranger depuis la troisième république ñoom ñu gëm diine dañ ko war parce que ils sont dangereux di leen caricaturer même en France les chrétiens qui sont pratiquants sont traités de fondamentalistes tout à fait donc affaire du entre musulman ki chrétien c'est pas ça mm-hmm. c'est la France qui a un problème avec les religions ñoom dañoo gëm ni nit ku gëm diine ak mm-hmm. diine bu mën a doon il est dangereux noonu la France di xalaate ah, depuis la troisième république loolu nag moom lañ bëgg jaarale ci institution Sainte Jeanne d'Arc fekk fa ay nit amu dund amuñu benn problème mm-hmm. depuis quatre-vingts ans ñu nekk ci suñu réew di joxe seen service d'enseignement mais musta am problème ñu toog ba ren daan dañuy changer seen règlement intérieur léegi mais loolu xam nga c'est une catastrophe alors loolu nag li ñu ciy wax rek mooy comme ni nga ko waxee juddu na bien avant sax daaw. mais daaw moo ci gën a fës. bi nga xamee ne ñoom nee nañ annoncé nañ ne déwén kuy muur. du fi yàlla mm. mm. léegi nag ministre de l'éducation génne lettre rappeler leen la constitution. rappeler leen la loi d'orientation loi d'orientation mooy loi bi tënk ni njàng mi dunde ak ku fi bëgg a ñëw Sénégal boo bëggee créer école ci loolu ngay tënk. tout ñoom ba ñuy créer seen école dañ cee tënk woon. waaw léegi nag loi boobu wax ne kenn mënta boddi kenn ci diineem kenn mënta boddi kenn ci waaso mhm. kenn mënta boddi diine ci lenn loo xam loolu la ngëm léegi nag ñoom moom rappelé leen loolu moom ministre de ñoom nag ñu jàpp ne ñoom faalewuñ loolu ñu bind seenu lettre attaqué ministre bi ne ko yow doo dara da ngay def lu la neex da nga ñuy menacer pour tëj suñu école mais bu déenee ku fi muuru doo fi jànge léegi nag ñu jàpp ne dañ koo wax noonu rek mais état kenn du parce que ministre bi su àddoo dafa àddu au nom de l' du Sénégal. absolument parce que état Sénégal quand même c' est souverain quand même. Mm-hmm. quoi qu'on dise. Mm-hmm. léegi nag donc ñun ñu jàpp ne duñ ko def ñu ñëw ren école bi rek ñu daal di dem dugg ci classe yi ci institution seen jant ak. seppi seppi euh, euh, seppi xale yi nga xam ni ñoom danoo muuru. mais ñu ne waa ji kon la ñu waxoon seen menace def nañ ko di. ah léegi nag ñu taxaw jàmmarloo ak ñoom wan leen nag réew mi moomuñu ko. léegi mbir mi évolué na. léegi nag mbir mi li ci évolué noonu laa leeral nag. gis nga li ci évolué. mais avant évolution bi bëgg mun na wax parents d'élèves yi nga xamante ne kenn associé wu leen. waaw ci loolu laa jëm ci loolu laa jëm loolu laay nga mbir bu amee mu dem noonu ñoom ñuy xale yi muuru am seen i parents d'élèves ñu taxaw ànd ak sénégalais yëpp. musulman comme chrétien parce que chrétien yu bëri dénoncé nañ ko ni d'accorduñ ci liñ bëgg a def nii waa léegi bi ñu ñëwee loolu nag ñu dem toog ca ministère éducation nationale mercredi passé euh, dirigé par le ministre Mamadou Talla mu woo institution Sainte Jeanne d'Arc te ma gëm man institution Sainte Jeanne la direction de l' institution Sainte Jeanne d'Arc avec la proviseure madame Rayana Tall ak moom le ministre éducation ak staffam ñoom ñëpp ñoo bokk groupe léegi nag ñu bàyyi groupe bi ci ëpp solo mooy parents d'élèves bi ak seen i ndongo ñiy muuru parce que nooy waxtaane ci problème bu mel nii. Mm-hmm. boo xam depuis lu mat deux semaines ngi ne xale yi jànguñu. d'accord seen i parents toog ngay waxtaan boo di leen doo leen woo. Mm-hmm. waaw léegi moom moo tax ñun lañ fa déggoo ñun xamuñu ko parce que man. damay wax ak parents d'élèves ñoom ñëpp ñu ngi réunir ñoom seen biir mais jàpp nañ leen fa déggoo doyu leen xam nga tax doyu leen parce que lu tax ñuy nëbbatu bu dee kay ñoom seen i doomay muuru te ñoom lañ génne ci classe yi mais bu ñuy waxtaan dañ leen a war a woo ni leen lii lañ bëgg a joxe comme solution léegi nag solution bi ñu joxee laa lay wax nag léegi mm. solution ba nga moo tukkee ci waxtaan woowu ñun parce que ñoom lañ fa génne mooy dañ ne léegi fulaar la ñuy proposer à la place de voile glissement sémantique bi c'est important mm. parce que xam nañ luy fulaar ak lan mooy voile léegi nag bi ñu paree ci loolu ñu ni léegi euh, proviseur bi ak IA dakaar Dakar ñoom ñooy woo parents yi individuellement wax leen léegi lii lañ leen proposé. mooy pour pour ñu koy muuroo. mais ñu ne kan mooy institution Sainte Jeanne d'Arc bay ñëw ci suñu réew ne fi rëcc di ñu wax nu suñuy doom di muuroo ak nu suñuy jigéen di muuroo te muuraay di une disposition de la waa divine. Hmm. parce que contrairement ak sénégalais yu bëri yi ci wax te xamuñu. c'est la sourate 33. oui verset 59. moom mooy wax ci muuru. te loolu waxu yàlla la. yàlla ni yow prophète. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal say soxna. Hmm. ak say doom yu jigéen. Hmm. ak jigéenu ñi gëm. que hmm. nañ wàcc seen kaala gu mag ci seen kaw. ndaxte loolu moo leen di aar ci ki nga xam ne da leen a bëgg a doyee dal. waa lii nag du lu ñuy warante bu yàlla àddoo kenn dootu interprété. te ñi am na ñeneen ñuy wax sax ne même les sœurs dañuy. waaw la ma ñëw ci bopp beneen bi beneen bi beneen bi nañ ko gëmee. waaw waaw loolu lépp c'est des parce que bu dee constitution bi dañu nag ku nekk am droit doxal diineem ni mu ko bëggee. Mm. mais kon lii nekk une disposition de la loi divine. nit ki di ko doxal nga toog sa réew. yow un franc-maçon athée bu nekk en France. jaar ci beneen congrégation ñëw Sénégal institution seen jandar ni leen léegi wax leen sénégalais yi léegi ku fa ñëw na muuroo nii alors que ñu naan nag nañ fa génne seen i doom inoor yéen ko mais nga jàpp ni mbir mi doy nga xamante ne ñoom ñooy parents d'élèves yi seen i doom nekk bu may wax ñun mooy man je parle au nom des parents d'élèves parce que dama leen a déglu lu ñu wax parents d'élèves yi nee nañ mhm. ñoom kenn du leen daggal morceau bu ndaw ni leen muuroo leen ko mhm. xam la ñu wax dañ bu ñu bëggee jàmm nañu bàyyi xale yi ñu muur nañ daan muuroo mais nag ñu wax leen ban couleur lay doon. c'est-à-dire. Euh, bleu bi wala weex seen seen gendarme mooy mooy wax. comme ñoom nee nañ dañuy bañ lu wuuroo ak seen tenue. Hmm. nañ wax nii la tissu bii mel joxe spécimen bi. wax ne nii la tissu bii mel. Hmm. Euh, euh, couleur comme ñoom ñaari couleur lañ am. bu bula ak bu weex. Hmm. ñu ne bleu ak weex rek nga mën a muuroo. léegi pour mu ànd ak tenue bi. léegi nag nga muuru ko ba mu wàcc génnewul kenn mais nag bu mu wuuroo ak tenue bi. mais boo ko muuroo ba mu wàcc nëbb na tenue bi. non nëbbu ko parce que couleur bi. Mm. bu àndee ak tenue bi ñoom moo tax ma la ñoom ñoo ko choisir bu la neexee sax tenue bi ci boppam la ñuy jël joxe ko comme tissu bi ñuy muuroo. y' aucun problème sur ça. donc il faut que mu leer xam nga lu ñuy bañ ñun. jeudi la ñu wax na xale yi ñëw jàng si. 22. Mm, te bu ñu ñëwee. incha allah dina leen jox. Euh, avant loolu. Euh, ma tiis bi ñuy muuroo ñun loolu la ñu wax état du Sénégal et d'ailleurs dañoo prêt sax pour tenir un point de presse mercredi. Il y dan beaucoup d'entente benn plateforme la boo xam dañ koy def incha allah mercredi prochain pour ñu toog des points de presse wax leen ni buñ yee fitna ci réew mi. benn institution mënu fee changer ni sunu xale yi ak suñuy jigéen di muuroo li mën a nekk mooy dañ wax seen couleur ñu respecter seen couleur. parce que am nañ ci droit mais nag. su fekkente ne leen laal waxtaan wi mooy jéem a wàññi ne xale yi na on ne saurait l'accepter parce que ñun benn euh, euh, euh, kuréel bu jógee ca France parce que comme je vous l'ai je vous ai démontré tantôt la France moo am problème avec les religions pas seulement l'islam léegi nag ñun suñu diine dafa am lu ñu sant léegi nag j'ai dit à certains parents oh qui qui dans cette école yoom seen doom muuruwul man lépp même yéen da na a war a solidaire parce que même su fekkee sa doom muuruwul loolu la waroon a def parce que disposition bi yàlla waxul ni kii moo ko war a respecté mm. kee waru ko respecté maintenant yow boo ko respecté wul ki koy respecté jàppale ko eh, tout à fait parce que nag ku ci nekk am na ci li xam moom la ñu sant mm. looy def ak loo deful mais ki koy def yow dooleel ko ca la muy def mm. yow ngay ñaan comme disposition moom kenn mënu ko werante ku ah. ubbi alxuraan gis ko ci donc suraat bi mu ngi ca leer nañ li yàlla demande ci jigéen parce que jigéen dafa am fitna bu ne ci moom yàlla moo ko defar yàlla moo ñu sax xam na ku ci nekk li mu def ci moom mu ne jigéen ñi nañ muuru parce que loolu moo leen di aar loolu mooy aar góor ñi ba nga xam ne li yee li ne ci ñoom du yeewu donc loolu moo tax ñii raisonné ci lii te xamuñ ci xam-xam dañoo war a mm. noppi très bien nag ñun dañuy rappeler à l' état du Sénégal foofu lay daanele pour peut être ngeen connaît seen kii mais li may wax état du Sénégal mooy que ni état de day day day wane doole mm-hmm. mooy état du faible un état faible c'est dangereux non non même rek wa dafa wone faiblesse l' état du de faiblesse parce que l'année passée dañu génne communiqué wax ni kenn du ko fi defee. rek ñii menace bi ñu def ko à exécution. ñu daal di dem accepter di toog di discuter di di waxtaan ci loo xam ne la disposition est claire sur la la constitution et la loi d'orientation xam nga lu ñu bëgg ñu taxaw jël seen responsabilité. xam na mooy jël seen responsabilité le Sénégal ne doit pas être un état couché France du mooy toog ca réewam. interdire fa port du am na ci droit. parce que réewam la ko neexee. mais nag ñëw suñu réew bëgg fi interdire le port du loolu day jéggi l'accepter day jéggi dayoo. c' est ça la vérité. c' est à bi amul ay wër-wër. Mm-hmm. suñu bëggee jàmm. Mm-hmm. ils vont permettre à ces filles. Mm-hmm. nañ daan voile woon ñu continuer koo voilé. mais et là on lance cet appel à tous les chefs religieux du Sénégal. ñu rappeler à l' du Sénégal que kenn mënu fi soppi. ne suñuy xale yu jigéen ak suñuy jigéen di muuroo parce que loolu c'est une disposition de la loi di lii moom pour mu leer rek ma nga xam ne benn problème di ci am buñ ko deful d'accord dinañ jàmmaar léegi porté ngeen combat bi ne ngeen li ngeen bëgg mooy ñu bàyyi xale yi ñuy muuroo nu mu leen neexee am na sax benn ndaje boo xamante ni yéen a ngi ko ciy waajal mercredi mooy veyu euh, jour bi nga xamante ne xale yi ci lañ war a dellu ci hmm. classe yi yéen loolu ndax jàpp ngeen di ngeen ci am ndam ndax bokkul leen woon ci waxtaan yi affaire dañ leen ci exclure diggante état bi la ak waa IJA Euh, am na benn waxtaan. mais la moo tax ñu exclure leen ci. waaw loolu moo tax ñu doom réew mi xam nga voilà wala ne la waxtaan bi dama ne la waxtaan bi parents ñu a woo. ñun sax ñu woo ñu ñun. mais parents yi inspection mais boppam dañ leen a war woo parce que ñoom nag ñooy aale kalet ji. parce ñoom la seen i doom di muuru. te fay weer bu dee ñoom ñooy fay weer bu dee te ñii dañuy jaay xam-xam institution seen gendarme day jaay xam-xam et même boo ñëwee ci euh, li ñuy wax les relations commerciales mais le client est roi. waaw a nga bëgg nit da nga ne ko kaay jaay la xam-xam te li muy def yàqul dara. parce que depuis quatre-vingts ans ñu ngi jàng di muuru. te andiwul benn coow. ña muuruwul parce que je rappelle aux Sénégalais que li fi wax amul. par exemple ma il a il y a une situation aussi qui est en cours parce que dafa am koo xam dañu dóor doom madame Silla. dañu dóor doomam bu fa tudd Fatou Nar la uh-huh. doon jàng institution Saint Jean d'Arc post moom tamit dañ ko dóor ba mu ba mu dem euh, hôpital principal. dóor ko nax la dañ ko dóor nax ndax affaire bi dem fekk ko fa ni ko da génn forcé ko. Uh-huh. daal koy dóor gaañ ko. ñu uh-huh. yóbbu ko hôpital principal mu gaañu ñu defal ko euh, certificat médical. waa léegi avec une incapacité incapacité de plusieurs jours. léegi nag loolu xoolal dossier boobu mi ngi ci tableau. analas ci tableau justice. te ba ah. léegi justice atteegu ko te kenn xamul fu muy mujj. waa non boobu nag sunuy sunuy naataango yu laas ñu xamal ne waxtaan am na ci te moom day bàyyi plainte bi nga xamante ni. ni négociation autour du voile les secrets d'une rencontre électrique entre Jeanne d'Arc et l'État. exactement dama ne euh, bi anamu ana. demal page 2 dama ne ma la fay xamal. ni ngoog juste ci kaw noonu. loolu c'est du journaliste crise du voile. Mhm. dossier du dénouement may ma rek dama lay expliquer dossier bi may ma rek dama lay jox dossier bi moi j'ai parlé avec la femme bi nga xam si moo jur xale bi. waaw li ngeen di wax nii bokkul ak li am. loolu journaliste moo ko bind. mais dama lay wax dama lay wax rek dama lay wax rek. affaire bi kenn xamagul fu muy mujj xamoon tax kenn xamagul fu muy mujj. parce que femme bi dóore. oui au niveau de la direction de l' institution Sainte Jeanne d'Arc. Ah, ku ko dóor la moom tamit. Euh, gendarmerie conk ñu ngi may dégg. convoqué nañ ko. convoqué nañ ko vendredi passé ma nga fa woon ñu entendre ko. pendant plusieurs heures le dossier sera remis au procureur de la République. donc il ne faut pas que ñuy wax ay waxu na saxal kanam li ma la wax ni vendredi passé la. te tey rek fa ñu waxoon ci jour ouvrable. donc vendredi ba après vendredi 15h lañ convoqué la dame. bi nga moo dóor euh, mademoiselle Silla. ci ci loo xam da koo jaay doole yaa may dëgg ci xale bu ndaw yow ngay ponkal magum jëm ñoo xam mën nga koo rey nga dem door ko gaañ ko léegi nag kooku leeragul procureur moo koy leeral keneen ku la wax lu dul lii naa nag après comme ni ma ko waxee man du ma famille bi peut-être après la famille mën nañ leen mën nañ discuter. yaa may dégg en négociation et cetera mais dama la ba jour ba jour tey. wax waxtaan woowu amagul léegi dossier bi. mais mm-hmm. ngi ci table procureur. te kenn xamagul fan la ñu. d'accord yow jege nga famille euh, parents d'élèves yi. non dama leen rencontré j'ai discuté avec. waxtaan bi ak inspection d'académie bu Dakar am na. waaw waxtaan boobu am na. luñ ci euh, ñoom ils ont rencontré la direction. Euh, la l'IA de Dakar mm. les parents. waxtaan ba la fa tukkee mooy. Mm. inspecteur Dakar Zermi bu Dakar nee na d' accord na ci réunion bi mu am ak ñoom vendredi passé nee na d' accord na léegi ñoom parents yi parce que ñoom ñëpp la recevoir à l'IA de Dakar. ni leen d' accord naa léegi ngeen jël ñaari nit ci yéen ñaari jigéen yu bokk ci yéen ñoo xam seen i doom dañuy muuru. waaw ñu ñëw bokk ci comité bay décider fulaar bi nan lay toll. ak nan lay demee. man leen loolu mën naa jur ah, jàmm. man leen loolu mën ah non non mais dama lay bëgg wax ni la la. comme fulaar bi génnagul mun ñu wax ne problème bi réglé wu na parce que journaliste dañ ni le premier déjà réglé c'est pas vrai. c'est pas vrai donc ñun ñu ngi xaar décision yi ñuy jël ci fulaar bi. très bien parce que le vrai problème aujourd'hui c'est le fulaar ensuite. d'accord beneen affaire boo xam si dañ koy leeral. Hmm. ba léegi ñu ngi dégg ministre bi. ak institution sainte gendarme comme ni ma ko waxee comme ñoo bokk camp. Hmm. ñu naan Euh, c'est pour l'année scolaire deux mille dix-neuf deux mille vingt ñuy leeral sénégalais yi. ça quoi l'année scolaire waaw loolu leerul. li ci leerul mooy est-ce que bëgguñu def loo xam ne pour taf yëngal la. pour cette année naxante ba génn ci bu déwénee ñu tegaat la ñu waxoon. loolu on a la non attendez attendez c'est important ah dama ni. dañu bëgg ministre de l'éducation profito ci situation bii. pour régler définitivement la question des règlements intérieurs des établissements publics et privés. pour que ñu xam ne. le règlement intérieur d'un établissement mënta nekk au-dessus de la constitution et de la loi d'orientation ñoom ñoo yore doole ji donc buñ ca profitoo nag ñu valider benn règlement intérieur boo xam ne dañ naan lii kenn mënu ko euh, ku ku ku ko jalgati. Mm. daañ la daañ la teg yi yi daan. pour que mu leer bu ko defee ñu harmoniser sur les règlements intérieurs. ba nga xam ne surtout sur les questions conflictuelles. yooyu ñu ñu ñu ñu ci. gis nga mm. loolu bu ñu ko deful. bu déwénee bu dee galgal bi ñu teg mooy bu déwénee. Mm. ren réglé nañ ko deux mille déwén ñu andiwaat même coow li. bu ñu ko andiwaatee xeex bi ñu xeex nii rek la xeexaat. xam nga ñu gëm mooy réew mi mënuñu fee ñëw ñoom nekk France. sunu réew bëgg ñoo imposer nu ñuy summee suñu xale et pour terminer yéen li lii Sénégal sax mais wax dëgg yàlla xale yu jigéen ñi nga xam ñu ngi ñu ngi génn seen awra ci mbedd ñu ngi euh, ñu ngi sol ay jean déchiré xale yu jigéen ñi ñu ngi ci lu leen neex waa ñun loolu lépp ñu metti ñu ñun sénégalais yi ñu gis xale yoo xam ñoo décidé seen bopp ni seen awra dañ koy muur mm. mais en quoi ça gêne léegi ñu bëgg ñu leen sumeeku leen. du ñu sumeeku. Ah. c'est ça le vrai débat donc aujourd'hui bu ñu bëggee jàmm nañu respecter la loi d'orientation et la constitution bu ko defee jàmm am suñ ko amul dañuy jàmmarloo. très bien